Sëriñ Tuubaa wax na ne ci wax ju wér Tuubaa képp ku fi am bu nekk bu yomal xëy na mooy doon saw laaj. sëriñ ku ne xam na ne fi mu def ay mbootam ak ay sekkereem bare na lool ci réew mi waaye Tuubaa mooy barab bi mu tànnoon ngir bu waree dëkkaale dëkkaale ji ak boroomam ñu andi ko fi wax nañu barab bi waxoon na ko maam Cerno Ibra Faati bokk na ci lam dénkoon Cheikh Moustapha Taamu Ba mooy bu ko noppee gis itam yëpp na ko jëmee ci andi ci andi ko ci andi ko kon nag na ko sëñ Abdou Lahad Mbacké radiyallahu taala anhu waxoon sunu sunu sëñ bu baax boobee waxoon na ne nit fu yaakaari addinaam nekk sax wóorta caaxaan jëm fa wóorta may wóorta may jëm fa rawate na yaakaari alaxira kon nañu xam ne mënuñu wormaal sëriñ bi war ma ju ëpp wormaal dëkkam bi mënuñu koo liggéeyal liggéey bu gën a màgg ñoŋolal ko dëkkam bi ba dara ba dara lu mu bëggul du fi am ku dëkk ci dëkk bi te sëriñ Tuubaa ñor la saa boo génnee ci biir dëkk aw naqar ngay dëkke waxuma sax ku fi dëkk waaye li ngay dégg ci rajo yi di ko gis ci télé yi metti na lool te loolu jot na sëkk ni ko ni ko Seex mun Muntaxa waxe te bëgg ko ni ñu teg suñu bakkan ci jël fi lépp lu méngowul ak nekk sëriñ bi ci xeeti po yi fi nekk football ni mu fi mel ku ne gis na ko léegi-léeg dañuy dem ba jege jumaa yi sax di di football ñun ñun ñëpp ñu koy romb wala wala wala barabu kilifa yu tedd yi léeg-léeg léeg-léeg gis jigéen yor melekaan ku ñaaw di romb jumaa ji tëgg moom jéggi na dayo ba ci li ba ci li tudd ay saal saal saal di ne wax wax ne sport lañ fay def boo fa duggee da da ngay mel ne sax nekko Tuubaa jigéen ca jigéen ña fay nekk col col gu bon gu jéggi dayo musique boo xam ne ña ko jege sax dóor ñu dégg ba ba ci saal de karaté yii bari na fi lool góor ñi ak jigéen ñi dafa jaxasoo loolu dëppwul ak Touba xale yu ndaw di di yaru ci loolu te jàpp naa nag fu ñu teree football teree fa làmb yii waruñu faa des booleeg nag manque de sécurité bi ci nekk ku mu neex ubbi loo neex yooyu yëpp nag jot nañ ci ñi ci am responsabilité war nañu war nañu war nañoo jóg saytu ko lu fi war lu fi war a jóg ne mu jóge fi te yaakaar naa nag te yaakaar ne kenn waru fi jiiti maire bi nga xam ne ñoom na sëñ bi dénk tubaa ndax kat Touba Touba wërta nekk dëkk dëkk boo xam ne day mel ne day mel ne pour poubelle bala ñu bala ban Sénégal la ñu ko fi te am na ci yoo xam ne bu doon beneen dëkk sax doo ko fa sañ def te amoo autorisation waaye mel na loolu lépp sëriñ bi moom sax moom Cheikh Cheikh Mawal Mountakha wan wane na yoon wi te mooy liggéey bi liggéey bi mu jël jël daaira Safinatoul Safinatoul Amane bi nga xam ne sëriñ sëriñ moo ko jiite jiite leen ci liggéey bi na ko kilifaam yu baax yi defoon commencé commencé bi sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu taala te kenn ku ne it xam na taxawaay bi nga xam ne daayira Safiyul Amaan taxawee na ko ci liggéey bi lépp nag ci Pastef ak taxawaay sëriñ Modou Lo mi nga xam ne moo nakk ca bopp ba xam nañ ko bu baax a baax ba mu jógee ci liggéey bi ba léegi mosu dellu gannaaw lu ne lu ne daj na ko ci liggéey bi lu ne dégg lu ne dégg na ko ci liggéey bi ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla dëgëral ko te sàmm ko ba kóol ba kóol gi yoon wi am ci moom mu àggale ko fa kaw te di ko wax ne nun waa Madiyana ci ndigalul sunu sunu kilifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké nañu yéene taxaw temm ànd ak moom ci liggéey bi sunu borom wax na ci alxuraan ne fala nasalana alladina ursila ilayhim wala nasalana almursalina wala naxusanna alayhim bi hilmi maa kunna xaayibin boom nee na bu ëllëgee ñi ma yónni woon ci nit ñi danaa leen laaj ba xam la ma leen yónni woon jotal nañ ko wala jotluñ ko waaye danaa laaj nit ñi ma yónni ci ñoom ba xam ñoo ñi ma yónni woon jotal nañ jotal nañ leen wala jotal lépp na ànd ak mu xam ne moom dara dara umb ko lépp mi ngi koy xam lépp mi ngi koy seede loolu tax ko woon a kon laaj ba du du du ak ñàkk xam Cheikh Abdallah Cheikh Abdallah Mbacké radiyallahu taala anhu dafa waxoon ne doon dégg mukk alxuraan di wax naan wa ma arsalna min rasulin illa bi xaw xawmihi ba ngeen jàpp ne ab yonent rek moo tax muy wax nabiyul mursal moo di ab yonent te rasul te rasulullahi moo ci mujj waaye mursal moom du saa ngir képp koo xam ne booy wax mbooloo na tekk di la déglu musal nga ci musal nga ci ña ngay waxal yàllante na nga xam ko ba leen di wax loo xam ne seen njëriñu àddina dana jóge ak seen njëriñu ak seen njëriñu nee na li li leen jox na ngeen fàggu ëllëg mu yoon xiyaam muy kër gi nga xam ne du jeex mukk sa dara du fa waaye nag bu leen fàtte seen cër ci àddina ndax àddina bii kat ci lañ mën a fàggaloo lanuy musal ëllëg yoon xiyaam kon nag képp ku ñuy déglu war ngaa wàccoo ña lay déglu ni ko sang bu tedd ba waxee woon sallallahu alayhi wa sallam ci hadis kenn ku ne ci yéen ab sàmm nga te ëllëg suñu boroom dana laaj la nga doon sàmm noo ko sàmmi waajur ab sàmm la ci njaboot ga jàngalkat bi ab sàmm la ci dongo yi muy jàngal sëriñ bi ab sàmm la ci taalibe yi yi aju ci moom imaam ab sàmm la ci ñi jiite chef de quartier bi ab sàmm la ca fam nekk maire ab sàmm la ca dëkk ba mu jiite ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xam ne sentiment yi sentiment yi yi dox ci nu diggante fii ci àddina la yam nee na ëllëg ëllëg yomal xiyaam bis bu tar la bis bu metti la bis la boo xam ne kenn du fa kenn du fa bàyyi àqam bis la boo xam ne nit dana gis mbokkam di ko daw doom dana gis yaayam di ko daw góor dana gis jabaram di ko daw kenn ku ne boo gisee sa koo gis lu mu la jege jege ak loo ko fonk fonk xam ngeen ne fonkeel munta munta munta paas diggante ak doom te nday dana gis doom bi ko daw doo doom gis ndayam bi ko daw kenn ku ne am nga loolu day sëkk yowmal xiyaam kat da nga fa gis ku ñu ku ñu xool jëfan ju baax mu ëpp mu ëpp mu ëpp jëfan ju bon mu dem ba dara desee ko lu lu jëm àjjana doomam taxaw ne keekat damaa yoral àq ndax mooy sama waajur te jàngalu woon yéruma woon daaw ma digal lu baax daw ma tere lu bon ñu ne ko loo bëgg mu ne mu fay ma sama àq joojee ñu daal di dindi ci jëfan ju baax joojee jox doom ja mu dem mu demati bay dem soxna soxnaam daan ne keekat damaa yoroon ak soxnaam daan ne damaa yoroon ak ñu ne loo bëgg mu ne mu fay ma ak joojee mu di ko def di ko def ba jëf ju baax jooju mu jëfoon te ëppoon jëfam ju bon mujj néew a ba jëf ju jëf ju baax ja ñu mujj tabal ko sawara ñu xam ne ak yoo ak yooyu ak yooyu fii la ci àddina kon kenn ku ne war ngaa fexe ba bàyyi xel loolu baax a baax mbokki taalibe yi tuubaa gi tuubaa tuubaa gi tuubaa gii nag war ñoo xam ne boroom bi mu koy sanc dara taxutoon mu sanc ko lu dul taxawal diine ak dund ak dundal ko xam ngeen ne sëriñ bi bi mu jotee ndigal suñu borom jaar ci jëwriñam sallallahu alayhi wa sallam ci yeesalaat diina ak sàmm ko nam ko ko waxe woon rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulla wahidin bi ma yalaxu bihi loolu la ko waxoon